asalaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk daara ji maa ngi leen présenté lii nekkoon ci ci guy gi moo nekk nii waaw li nekk ci guy gi lii lépp ci guy gi la nekkoon waaw yaa ngi nii waaw yëpp ngi nii waaw lii laa ko doon dindee waaw moom laa ko doon dindee ak jaasi bi waaw guy gi moo nekk nii waaw guy gi lépp lañ miine lépp lañ daaj ay xaatim ay yàq ah mais booy xool ki gën a bon ci kaw suuf mooy njabarkat njabarkat moo gën a bon ci kaw suuf ni ko oustaz di waxee ndax xoolal guy gi ni ma ko gaañee nii gis nga gis nga lépp ay xaatim la li ko wër lépp lépp lépp lépp lépp moom la waaw li ko wër lépp moom la mi ngi nii lépp dindi naa ko ci kattanu sunu borom waaw te def naa fi ñaan tamit ci tool bi waaw fii nee naa ko jaan fii du fi matt kenn bi isnillahi taala Wow, ci ndax parce que fi borom tool bi expliquer na man ne na yu bon yi ñu fi def ay legat ay percal lu nek amna ben legat leget xamne mi ngi ni ci suuf waaw legat bo xamne moko sanni mi ngi nële ah leget baa ni legat ba nek ni nii moko sanni na percal lañ ci dugal lañ ci def ay liggéey bon sang bu xeye fekk ko ci tool bi mi ngi ni waaw léegi nag ci katanu sunu borom nak jaamu yalla yi ñoo wara yewu ñu xamne yalla sunu borom subhanahu wa taala mom nopi na ba pare ñun ñoo ci dess waaw ñun ñoo wara a sunu bop waaw li mom ku bëgg a ku bëgg dugg ci diine mom da ngay génn ci li li dara baaxu ci njabar la waaw njabar mom ku ci dé rek waaw mom mom safara nga jëm waaw waaw nañ nañ nañ leen delloowaat sunu bop ci yalla wallahi lazim da ngay xol li rek li xoolal li li doona war doy na waar ay njabar xeetu njabar lu nekk ah lu nekk ñu def ko ci àll bi waaw mu ngi nii dara baaxu ci waaw vraiment doy na waar daal mi ngi nii daal ñu ngi leen di ziar bu baax a baax mbokku daara ji di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen bu baax a baax waaw tey la euh, mardi le 12 janvier 2021 euh, seen mbokk bi doon def vidéo bi mooy Serigne Mor Ndiaye Cité Fadia Eh, di len ñaanal jamm diko ko ci yéen baax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh